weekend bii ñu génn dafa am benn tiis bu dal si si kaw euh, askanu Sénégal muy euh, génn àdduna kii di euh, Alioune Badara Cissé maître Alioune Badara se nekkoon médiateur de la République nekkoon tamit membre fondateur bu APR nga xam te ni yéen a bokkoon parti mu jóge fi ñu gis ne omage yi ñu ngi jóge fu ne ñu nekk si opposition bi société civile kër sëriñ si fu nekk hommage dafa jóge loolu nan lañ ko mën a jàngate d'abord li may jëkk a def mooy li mu soxla fi mu ne nii mooy ñaanal ko Euh, yàlla xare ko àjjana euh, di ñaan yàlla mu féete njabootu Alioune Badara Cissé fi mu leen féete woon di ko jaale ay doomam di ko jaale sonaam euh, di ko jaale communauté Mouride bi mu bokk sëñ Mountakha sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Khadir ak sëñ Moustapha ak njabootu sëñ Abdou Khadir yëpp góor jigéen di ko jaale taal bi yëpp di ko jaal président de la république nga xam ne compagnon la ci politique di ko jaal waa Sénégal. ndax Aliou moom ñëpp euh, euh, wax dëgg yàlla nitu ñëpp la. loolu daal mooy li nga xam ne moom laa bëgg a jëkk def ndax wax toujours nit ki moom bu faatoo mu gën a soxla rek mooy ku ko ku ko ku ko ñaanal waaw ku ko ñaanal maintenant li des nag comme ni ma la waxee bon on peut discuter daal voilà. question bi leen laati woon nga ne. Euh, ni nga gis ne réaction yi. ah oui réaction yi ni ko nit ñi rendre rendre compte souvent ñaari am na hommage yoo xam ne. man du ma jël considération parce que xam nag Sénégal dañoo xaw a bëri ñaari ñaari ñii ku dee ak ku ñàkk moom am day am jàmm ci Sénégal waaye bu dee hommage yi ñu ñuy rendre Alioune Badara Cissé moom li ma la mën a wax Mohamed Aliou lu waaye wax ci moom lu baax xamal ne dese nga dara Alioune Badara Cissé lu waaye wax ci moom ci lu baax xamal ne yow am na loo fàtte am na loo waxut man 1990 laa ko xam Alioune Badara ma ma xamoon ak mii bis bu yàlla sàkk gën a baax lay def waaye amul leen lu dolli ko ci gën a kon encore une fois loolu li mu ci mën a jàngat mooy nit ñi koy rendre hommage ñi ngi rendre hommage ku baax mais en fait fondamentalement Sénégal ñàkk na ku baax et le kii est dommage et kii est le plus dommageable mooy que en fait Alioune Badara Cissé ni mu war ni ko Sénégal waroon na jëriñoo Sénégal jëriñoo ko nii. moonte médiateur de la République la woon gis nañ ne bi muy nekk médiateur de la République. Euh, saay su ne daan na taxawee euh, taxaw dina daan na tëddee njaaxaanaay daan na jël ay position sax yoo xam te ne yenn saay du arrangé gi ba yenn saay sama ay yu bëree bëri menacé ko sax nekk da nga koy teggee tout euh, loolu noonu yëpp tamit nan lañ ko mën a kiiwee si waaw xam nga Aliou ñun on s'est connu bi ñuy dugg Pérez la xamante gis nga Mohamed bi mu jàngee ba ñëw fees dell ak diplôme bu doon yi bu doon jëmmi boppam moo ko yitteel parti socialiste lay dem ci jamono jooju ba borom xam-xam buy ñëw PDS dafay xaru daanaka benn bi mu nekkee mille ab Abdoulaye Wade falu ba mille 2004 Alioune Badara joxuñu ko pratique benn responsabilité bu ma yëg bokk ci wàllu nguur bi Macky Sall falo la ko teg ci wetam bi nga xamee ne ñu ngi fatanqal Macky Sall ci alliance pour ci parti démocratique sénégalais ba muy bàyyi Alioune Badara Cissé dafa ànd ak moom dem te bu ko neexoon toog autrement 2001 1988 bi muy dëggu PDS booba bu ko alal yëkkati woon du ñëw PDS parce que booba euh, PDS amuñu dara te booba am na xam-xam boo xam ne bu ne woon parti socialiste bonjour ñu ne ko dalal jàmm hmm. euh, bi muy génn PDS après 2008 ànd ak Macky Sall booba aussi bu fekkoon ne alal moo ko loon kon day des ci PDS parce que damay wax ne kuy bàyyi kuy kuy séddale di ànd ak koo xam ne sax ruujagut kon loo lekk taxul a jóg kon encore une fois moom euh, gëm gëm réew mi. gëm gëm gëm defar réew mi moo ëpp mu ëpp mooy itte ji ëpp ci moom ci ay ay inter intérêt personnel am évidemment nekku na médiateur bi mu fa nekkee aussi ci loolu ngay comprendre lu tax moom bi mu nekkee médiateur mu wuuteeg médiateur yi ko jiitu parce que bëggoon na médiateur médiateur de la république mu nekk jumtukaay goo xam ne day nekk ay bët ak noppi président la république ci li askan wi di dund maanaam daa bëggoon a dox diggante askan wi ak ak république bi pour bu xa di xam coono bi askan wi di dund di ko mën a jot lee pour mu wutal ko safara d'habitude les médiateurs de la république li ñuy def mooy ku am problème ak état ci wàllu yoon ñu ñu ñu dox ci ba nga am ci solution. waaye moom dafa bëgg nekk le médiateur de la république entre le peuple sénégalais mhm. et la république du Sénégal. justement dina ñëwaat si discours bi nga xam ni moom la mujjee def ce discours solennel la Euh, si événement wu yi bu mu amee euh, bi mu waxee président Macky Sall samedi bi wala dimanche bi su ma juumul si altine bi gis nañ euh, solution am si discours boobu si jamono jooju tamit ñu lu ñu bëri déglu woon na te ñu jàpp si dundal. waaw effectivement parce que boo discours bi sa en réalité bu ko defee publiquement c'est que bu la mu bëggoon du loolu moom li mu bëggoon mooy jokkoo ak président de la wax ko li mu lecture bi mu am situation def lu ne nag daj na ko pour wax ak moom ay wax dëgg yàlla jutu ko. alors bi mu ko jur nag la jëli responsabilité dem adressé wu euh, jaar ci presse bi pour wax ak rawatina ci ndaw yi pour appeler leen au calme mhm. à la sérénité wax président si mu gën a bàyyi xel euh, euh, askan wi surtout xale yi maintenant li président waxoon keroon ne dégg na li xale yi wax jàpp naa ne loolu day conforter rek position bi nga xam ne moom la ABC yoroon mooy xam na ne ay jafe-jafe am na ndaw ñi am na lu ñu comporté woo mu wax ak ñoom mais wax ak président de la République pour mu jël euh, mu gën a jox nopp askan bi en réalité loolu da day continuer rek moom vocation bi mu bëggoon a jox la médiature de la République mu nekk euh, maanaam ak buum. diggante askan wi ak ñi nga xam ne ñoom lañu dénk réew mi. mais euh, nan lañ mën a comprendre ku mel ni médiateur de la république bëgg euh, wax ak président de la république si benn situation bu critique bu taxaw mu bëgg koo jot mu mënu koo jot ndax loolu day am ay problème politique yu nekk si ginnaaw wala nan lañ ko mën a. jàpp non non globalement je crois que bon ko waxee te muy dëgg nag président Macky Sall daa bokk ci les présidents les plus injoignables de l'histoire du Sénégal la vérité ñëpp ñëpp a ko jot waaw ah, yomb la yomb la waxal nañ seen rapport ñoom ñaar. Ah, non du question de rapport xam nga une institution institution la du rapport ñoom ñaar nit déedéet c'est-à-dire que président la République c'est une institution ñu dénk ko réew moom ci boppam mu ay institutions yu am ci république bi yoo xam ne dañ leen a dañ leen a dénk ab dañ leen a sas ay cër dañ leen a jox ab liggéey ci réew mi war na saa suñ ko soxlaa mën koo gis kooku moom. mais à un moment donné moom il était incompris surtout ñi nga ñoom ñoo nekkoon majorité bi demoon na ba yaakaar ne sax euh, médiateur opposant la woon. waaw mais xam nga loolu mooy ñàkk xam rek ñàkk xam rek parce que Mohamed bu ñu la dénkee réew Sénégalais bu ñu la falee. di la fay di la jox seen alal nga di ci liggéey ki lay fàttali jafe-jafe askan kooku mu ànd ak yow souvent nag ñaare boo nekkee ci nguur li ngay gën a bëgg a dégg mooy ki leen wax naan yaa man ñi fi jiitu doo seen morom li nga fi def kenn defu ko loolu xëy na moo gën a neex a dégg ci jafe-jafe am na wutal koy saafara bon c'est dommage quand même parce que pouvoir moo mel noonu xam nga pouvoir boo ci nekkee da ngay nekk ci tour d'ivoire li tubaab di wax tour d'ivoire maanaam euh, euh, daanaka li ngay bëgg a rek mooy ki lay wax ne lépp baax na te nag lépp baaxut kenn mënta defar lépp waaye jàpp naa ne ki lay wax ne la am na lu baaxagut kooku moom yow moo gën a ànd ak yow kilo naan lépp baax na parce que nag bu lépp li li baax moom baax na jërëtu jërëtu sonn li jar sonn mooy li baaxagut bon en en loolu dafa nekk rek moom ci dimension bi mu bëggoon a jox euh, la médiature de la république gis nga loolu Mouhamed euh, booy delluwaatee ci xam nga dama la wax sànq ne bi mu ñëw P PDS ci jam 1990. booba PDS post néew fa moom daa fees dell ak i diplôme euh, bi muy ànd ak Macky di génn PDS booba Abdoulaye Wade yor teraanga yëpp mu bàyyi fa post bi mu yoroon moom génn ànd ak président Macky kon loolu li muy tekki mooy moom li ko soxal mooy poste yi maanaam li poste yi njariñ bi mooy liggéeyal askan wi maintenant loolu nag dañu bu ñu delluwaatee 1960 dafa am gis nga rëq-rëq bu dal waa réew mi tàmbali ci ba léegi moo nu topp gis nga 1960 bi ñu bi ñu tuddee ne am nañ indépendance mais que gëmmoo ne d'émancipation du peuple sénégalais un instrument de développement du Sénégal malheureusement ñun suñu état bi li ñu ko tuddee mooy nguur au lieu mu nekk jumtukaay pour tabax réew mi dañ ko tuddee nguur nguur nag ci wolof mooy lekk ak naan encore une fois même la notion bi ñu boo dégg di Sénégal nguur gi borom réew mi expression yooyu ñu utiliser li ñu ci xamale mooy état bi ak république bi gouvernement ak assemblée jum maanaam eh, li mu war a tekki sax tekkiwu ko ci askan wi loolu nag du ci askan wi moo am problème ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ci bi Sénégal door am indépendance ñoom ñoo la jë parce que ñoo waroon a def état bi jumtukaay pour jox réew mi boppam jox citoyen seen bopp développer askan wi mais malheureusement dañ ko def affaire nguur. affaire nguur nag boo boo boo ko defee tamit si rapport ngeen am seen yéen ñaar ngay wax ne sax moom moo la euh, présenté euh, président Macky Sall. waay waay xam nga man bi ma nekkee PDS maag Macky Sall sequt woon lu bari. surtout jamono ji bi ñëwee ci foire parce que bi ma créé man ak samay xarit ñoom Khadim Amar ñoom Ibrahima Kane ak Demba Sané ak Ilaas Ndiaye euh, wàccoog alternance boobu wax dëgg yàlla Macky Sall moom bokkuñu ci <laughs> ñu nu sopp parce que ñun boobu dañuy critique Abdoulaye Wade ak Idriss Seck bu méttee méttee métti daawuñu jaxasoo ak moom on n'avait aucun rapport avec Macky Sall bi nga xamee nommé nañ ko premier ministre aussi je n'ai aucun fait aucun effort am entrer en contact avec lui c'est qui a moo wut audience ne na euh, pour président pour le premier ministre Macky Sall recevoir suma groupe bi ma ji euh, euh, mouvement bi ma muy wàccoo alternance ak so bi ñëwee ñu toog waxtaanee parti bi waxtaane réew mi ñu jox ko suñuy xalaat loo xam ne jàpp nañ ne bu ko defee mën naa am jafe-jafe yi nga xam ne premier ministre bi bi mu remplacé amoon na ko ak président Abdoulaye Wade du ko am kon man Alioune Badara Cissé moom ma jëkk a mettre en rapport avec Macky Sall kon damay wax ni kon bu ma sax man euh, maanaam sax man naa ne xëy na li tax ma ñëw APR sax am na ci rôle bu rëy rëy parce que bu fekkonte ne présenté wuñu Macky Sall xëy na duñu xamante doo benn bi ci bi nga xamee ne Macky Sall commencé ami jafe-jafe euh, moom suma xarit la bokk na ci li tax ma sawar ci ñëw jàppale mag Sall mais man bay ñëw di jàppale Macky Sall bi muy xëccoo Abdoulaye Wade c'était pour jubale leen loolu man moo ma intéressé woon bi muy dem itam kero bi muy formé partie bi enfin bi muy def bi muy installé directoire bi këram la ma fekk bi muy démissionné ci PDS yëpp boobu maa ngi ci biir kër gi gis nga bi ñu defee loolu ba pare ba dara lu ñibbi dama jël dama jël dama dem ci benn roxu day Macky maanaam Macky man Macky Sall ak Marème ak Alioune Badara Cissé ma téye ma jël Marème ma ne ko Marème dama bëgg diggante Alioune Badara Cissé ak Macky Sall nga sàmm ko nga taxaw ci ba mu bañ yàqu parce que xam naa ne bu ñu àndee ànd boobu dana mën a jur dara Marème ci boppam ma ne ko yow li ma lay dénk mooy ginnaaw sa borom kër day fokk mu dana créer parti maanaam am na noo noo xam ne boo ni taxawee rek parti bi di jëm kanam ma ne ko dangay ngay nga ubbi sa kanam leeral sa kanam yaatal kër gi ba nit ñi war fee ñëw ñi ma ne ko ñaari mission yooyu laal sant benn ubbi sa kanam ba nit ñi ñeme ñëw ci ci kër gi ñeme sa borom kër ñeme la bi ñu des mooy Alioune Badara Cissé ak Macky Sall na nga na nga ma téyal seen diggante ba dara bañ ci sikk bi ma paree Macky Sall ne ma waaw yow tax doo lu tax doo ñëw doo ñëw doo ñëw rejoindre ma ne ko déet dem ci parti moom man maay tànnal sama bopp bis ma demee ba tànn ne dinaa ñëw ci yéen dinaa ñëw bon bi ma démissionné PDS ay booru 2009 après les local locales de 2009 ma dem rejoindre Macky Sall fekk na boobu man déjà j'étais conseil municipal de la ville de Dakar. Euh, jamono euh, di dox mel ni euh, diggante boobu noonu xawoon na ñagas tuuti mais bi mu amee aussi gis nañ APR aussi rendre ko hommage bu baax a baax. oui bon c'est quoi c'est leur honneur hein. c'est l'honneur bon mais au Sénégal nag parfois nga gis xam ne c'est des <laughs> nañ ko rendre hommage rek na ni ñu ko rendre hommage bu ñu ci góorgóorlu woon diggante ma a yàqu na du agsi fii luñ ko wax ci lu baax rek des na parce que ñoom xam nañ ko moom xaw ma ko xamul ab Aline Badara Cissé waaye waa APR xam nañ xam nañ fit bi xam nañ xarañ gi xam nañ humilité bi xam nañ disponibilité bi xam nañ yeewu gi waaw loolu lépp xam nañ kon li ñu wax dëgg la ils daan nañ ko ah, jàpp naa lu ñu wax rek am na lu ci des.